kumar anane famay waaw dëkk ngeen niki dimanche bi ñu génn talibé yi wutal leen dëkk bu sell bii di tiwaawan ngir mën a ziar annuel bi ñoom nag ña nga bàyyeekoo fële si sénégal ngir mën a de si seeni ziar sëriñ babacar si bu wootee boo fi teewee mbégte rek lañ fi ñëwee daal ak yaakaar ak ñaan si suñ soxla bëgg yàlla def réew mi ak lépp mbébét lu bëri am yaakaar ñëw fii ndax sëñ Babacar Sy rek ak euh, jëfam liñ ko yaakaar gin am ci moom daal moo ñu indi fii tey ñun ñëpp ñu teew fi gis nga mbooloo mi fi dajee yëpp kon nag am nañ kontaan te yaakaar bi am ba bu yaakaar tas ci barke naam naaj bi tàng na loolu wante foo sànni sa bët di nga gis ab mbooloo ak ñu ngir a dugg si xablu yi ñu mën a ziar depuis man depuis si 9h ba léegi maa ci rang yi maa ngi ci biti mais gis nga ba heure bi maa ngi doog a yegg si fii si biir sax waaw loolu yëpp xam nga sëñ bi ñu ko jaral rek jaayante dañuy jaayante rek tey jii sëñ Babacar moom mënoon nañoo yem suñu kër sax ñaan ko mënoon nañu ñëw aussi ba si buntu jumaa ji ñaan ko mais dañuy bëgg dugg ba si xabru bi ñaan ko suñu soxla donte yàlla moom ñaan ko suñu soxla quoi léegi ñun naaj bi tànk na mais jaral nañu ko mu nekk ab bu dajale ñu bëri ba tax na ay dañoo def ab association ngir dimbali ñi nga dañu am am fu ñu ñun association xale yi judd si ginnaaw mbay waaw ñu ne association xale yi judd si ginnaaw mbay bi ñu formé ba léegi yàgg na chaque année dañuy dajale li ñu am suñu xaalis ak ak benn benn bonne volonté yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale ñu dem def suñuy ndugg ak suñu yëpp suñu ñëwee fii képp koo xam ne ñëw nga Tiwaawan te amoo dal dangay ñëw fii si jumaa ji soo ñëwee si jumaa ji dañu la jox nga lekk dañ la jox nga naan dañ la dalal itamit su fekkente ne dangaa réer dinañu fexe fexe fexe ba nga gis say mbokk lépp loo xam ne daal gan yi nga xamante ne ñu ngi ñëw Tiwaawan bépp jafe-jafe boo xam ne am nañ ko bu ñu egsee si xale yi nga xamante ne ñoo juddu ci ginnaaw mbay seen jafe-jafe yëpp dina dina saafaraw ziar boobu lay nekk ab événement religieux bi nga xam ni depuis 1930 ba léegi taalibe yi ñu ngi woy di ko amal ka ko initié woon di Sëriñ Babacar Si